lii doyetina waar mbokki internat yi ñu ngi jëm ba jaxaay ca diwaanu ndakaaru jaxaay lu doy waar moo fa am mbokk yi juróom-ñeenti adolescente juróom-ñeenti tout tànk yu jigéen ñoom leen fa violé ci ab internat ba pare obligé leen ñuy def li ñuy wax planning familial ngir ñu bañ a ëmb ma la ab maître coranique doon yor nag la nga xam ne moo di internat ba doon jàngal gune ci njàngum arab moom lañ fa jiiñ wàllum viol yoo xam ne dañ koo répété ca kaw gune ya ya nekk ca biir euh, internat ba moom nag daa di nañu koy teg loxo placé ko garde à vue ca commissariat police bu jaxaay laataa na ñuy gën a càmbar ay dossier am ma ngay wuyoo ca turu bee baayoo toll ci fanweeri at ak juróom moom day moom moo daan jël xale yi jigéen yi doon leen yóbbu ñuy planning ngir mu mën a yegg ci seen kaw ngir na kenn bañ cee ëmb mbokk yi fee bu doy ay ca ma nettali ko scandale bu doy waar le scandale sexuel moo secoué localité jaxaay bi yépp kenn ku ci nekk rek yaa nga taf sa gémmiñ ak di ko dara naan lii xew lan la fu mu xewe lii may dégg lan la ndax mën naa ne question yaa ngay dàkkante ca bopp doomu aadama yee ca diwaan boobu mbokki internet yi mbir mi bi mu éclaté daanaka ay tuut tànk yu ndaw ñoo ci nekk ay victime ñoom ñooñu dey moom kilifa gi di wuyoo ci turu Oustaz Baye Bayo yegg na ci seen kaw si ba aw yaramam tàng d'après xibaar bi nu jot di leen ko fas yéene faram ci suñuy rubrique jàngat fait divers yi ma ni la ab internat la bu nu sukkandikoo ci sunu source foofa dey ci immeuble boo xam ni moom la internat ba nekk benn waxaaj ba yëggut ña ngi koy tabax foofa nag la xale yi daal di nekk di jàng seeni wéyjur am ci ñoom am ci otage bi confiance quatre-vingt-seize apprenants juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ñépp logé nañu gratuitement ne dañuy jàng langue arabe ak jàng seen diine te parent yi bi nuy jébbal otage bi gune yooyu xalaatuñu woon ni lii dina des na ami ndax dañoo bëggoon ku defar seen doom ci jikko defar ko nag ci diine waaye teg ko ci yoon woo xam ne yoonu njub ba bu ëllëgee bu mën a dékku yéen bi nga xam ne mag ñi teewoon nañ ko démb tamitam muy dund ba tey ji njaboot gi yor ko wuy jur wu ci nekk xalaat boobu nga am mbokki internet yi mbir mi ndekete dafa ëppi loxo ba xëm baraw caaf lu xëm rëcc ci ay loxoy doomu aadama ndekete yoo bee baayoo ak dalam akuk maandoom maandu teem ndëkkate yoo loolu noonu masque la woon bu nu sukkandikoo ci yéenekaay bi wala sax suñu xibaar yi nu jot mbokki internet yi ndekete internat bi bu guddi xasee jot rek day mel ni gune yi dañuy jaay seen bopp waa ji nekk ca di simbileexu nekk ca di simbileexu fàtte la taxoon ñu indi fa gune ya mbokk yi lii doy na waar mani la xale yi ay viol répété yoo xam ni moom lañu dund foofa ak ay mënaas représailles yu mu leen di teg kenn du ŋaa kenn du wax kenn ñu mewu koo dénoncé hmm, mbokki yi lii yéeme na pexe bu ne lay cherché ngir yegg ci seen kaw waaye ñu bañ a ëmb li tax nag mu def loolu mooy def leen ko garantirel ci ay méthode li ñuy tuddee méthode euh, yi nga xam ni moom la ñuy tuddee méthode contraceptive ñu gën ko xam ci planning familial kenn ku nekk ci ñoom dalay daal di yóbbu ci benn centre médical bu ñu tubbee dund gi dund gi nag ma nga nekk ca arrêt 56 jaxaay bu nu sukkandikoo ci xibaar bi nu am nee nañu foofa lay yóbbu gune yi ngir ñu planning ma ni la gune yi dañuy ñëw fekk rang bi naxasaale wu ba inscrire ci liste bénéficiaires yi war a def planning te kenn du leen yëg bu ñu defee ba pare mu àndandoo ak ñoom dem guddi gi muy simbileexu hmm? kii moom kaa kaa avec ses majuscules ma ne la bile utaas kenn ku ci nekk rek képp koo xam ne jàpp na ni war naa yegg ci sa kaw rek def na noonu def loo loolu mbokk yi moo yéeme lii doy na waar waaye nag li ci gën a yéeme mooy da ko def prétexte pour gune yi bañ a jël ëmb xalaatul woon nag ni lu yàggul dara dina feeñ bëccëgu dara kàmm ba jëf ju ñaaw ji ñu weer ko ba mu mel ni biti xale yi fréquentation bu metti bu ñuy def ca centre médical boobu di dund gi kenn ku ci nekk di ñëw naan dama bëgg a def méthode contraceptive maanaam dama bëgg a planning mel ni ku ne ci néegu sëy loola noonu nag jaaxal personnel ba ba ne ca l'hôpital booba talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre wi ñu nekk ci bëccëg gi ñaari adolescente ñëw yu nekk ca internat ba ñëw ci centre dund gi ni dañuy def planning ñooñee nag dute ni a ah, mbir a ngi bëgg xew ni cas seenu téléphone daal di woote commissariat bu police bu jaxaay informer leen informer commissaire Youssouf Thioub Youssoufa Thioub ci ni ñu jote xibaar bi ngir dénoncer phénomène bi ak présence gune yi ndax nag mu ngay bëgg ëppi loxo ñoom daal nee nañu gune yi dañuy ñëw bu ñu ñëwee ni dañuy planning ñu daal di dem tey li ci doy waar ñëpp ay mineur leen 12 ans ba 14 ans intervalle boobu la gune yi nekk waa ji nag ba mu dénoncé loola ca nag way takku der yi daal di jël seenu oto ni coyyu ci lieu ba ba nu ñëwee ña nga bett gune gu ñuy wax esturé esturé mu nga toll ci fukki at ak ñeent 14 ans ci bureau sage femme bi mi ngi ngëpp ci loxo bi juróom-benni téeméer ni day fay pour def contraception ci tut tut tut tuuti na waar waaye nag bi policiers yi ñëwee itam sage-femme ba bu nu sukkandikoo ci xibaar bi nu am def na rôle bu na joué jéem a gagné confiance gune gi ngir police fekk ko fa ndax booba woote nañu ci kanamu nag limier yi ca la gune ga daal di weeroo esturé moom pensionnaire la ci internat ba lépp la nit li policier yi daal di xam nag ni kon mbir mi jot na ñu làbbali xiir gi ngir nag mën a am yoon wu leer naññ wu niy aw ba lii ñu nuy nit li mu dugg suñu nopp ñu am ay preuve palpable ba mën a teg loxo defkatu ñaaw teef bile mbokki internet yi ba nga xamee ni nag liggéey ba police ña ngi koy wéyee ca la ñëw ca Oustaz Bayo fekk ko ci néegam ci internat bi ndekete boobu moom day faral bu ñëwee day daldi jël gune yi yépp ci ñoom kenn ku nekk mille francs ngir ñu defi loolu bi la déclaration nag commissaire Thioub daal di koy jot baral liggéey bi bam ko baralee ñu daal dem ca centre ba fekkati fa geneen gone guy wuyee ci turu S Jaasi S Jaasi nag moom itam pensionnaire la kooka itam nitti li lu ni mel mu ni utaas bi moo leen koy defloo ngir mën a yàgg ci ñoom di si mbileexu neexu ñoom ñépp dañ leen a violé ba pare dañoo infecté chottt toutes les neuf filles violées sont infecté lii la xibaar bi wax ci révélation fracassante yi nga xam ne kenn ku ci nekk boo ko déggee yaa ngi sakk say nopp jóge ci ñaari gune yi nu bett ci l'hôpital ba tax na ba ñi nga xam ne ñooy way takku der yi ñu daal di wuti nag jaxaay ba nu wutee jaxaay nag gën nag fësal seeni investigation ba mën a teg loxo utaas ba ban ko indee nag ci kanamu enquête kat yi mu tombe nag ak déclaration yi gune yi bàyyi moom utaas bàyyoo nangu na ni moo jox kenn ci ñoom juróom-benni téeméer waaye da koo jox te kam ko jox mooy esturé ngir mu dem faju waaye joxu ko ko ngir loolu loolu la wax daan naa teg mu am nag benn méthode de défense boo xam ne police da koo teg ngir gën a làbbali xiir gi ba ñu ko defee nag dañoo découvrir yeneen cas yeneen cas ma ni la di daanu ba muy juróom-ñeent sooy doy na waar enquête kat yi mbokk yi mu mel ni nag dañoo gën a conseil ñoom itam seeni laaj ci gune yi ba gune ya daal di mujj gi nag wax la xew lépp na mu doon demee yépp ñu leeral ko juróom ñeent ci ñoom ñoo nekk ca internat ba kenn ku ci nekk nag ay sàkku goo xam ni minute bu jot wala saa su ko bëggee def na ko ci ñoom def ko ci ñoom def ko ci ñoom ak nam ko bëggee dee ba bokk ci ñoom ni enquête yi man de dinaa wax ndax nag oustaz bi méthode opératoire bi mu daan utiliser mooy day ñëw xayma ci ñoom bu guddi jotee am ku mu yóbbu ci néegam simbileexu ba pare daal di ñëwaat mel ni du moom te ñéppay nangu nag képp ku mu koy defloo dangay ngay nangu te doo sañ wax kenn sañ ta wax kenn sañ ta miim lu dut muy def jëf jile ak saa su nekk ak ni mu ko bëggee te li gën a garaaw xale bi mooy wax nee na dalay daal di ñëw daf genre prétexte mel ni ku lay faj ak benn bain mystique maanaam ab càngaay day obligé simbile ba nga set wicc nga futtitiku ni dung mu daal di lay diw liquide booba nga xam ni nee di ko tudde eau bénite bu la ko xajamalee ci saw yaram ba pare nga daal di euh, mën mu daal di yegg ci say kaw mu nekk lu doy waar résultat yeeg nga xam ne nag examen yi gynéco ba def moom wane na ni da jébbal na ko wane na ni walla wax na police ni mbir mi kat sàkku gi gis nañ ni xale yépp a infecté loolu dafa yéeme mbokk internet yi lu doy waar a ngi nii kaa bu yéemee ngi nii kaa bu doy waar ñoom ñépp a infecté ma ni la léegi nag ca la dëkkandoo yee commencé di wax ñenn ñi naan ñun de dañ daan dégg léeg-léeg guddi gi ay yooxoo di jub ci ci internat bi bu nu xëyee otas baayo nii maa ngi jéggal leen ma man de eh, da eh, xale yi léeg-léeg du eh, seenum njàng du mokk moo tax ñu leen di corriger pour ñu mën a mokkal maa ngi jégglu ñenn ñi yooyu leen doon wax fekk booba li wolof naan bay wéy na mbuus ñoom nee nañu gun daan tëdd guddi gi dañuy dégg ay yooxoo waaye otage bi li mu leen di gëmloo bu xëyee mooy xale yi kat ñenn ñi du mokkali leçon moo tax ñu leen di corriger ngir ñu mokkal ndax nag xar kanamam maywul dara nga tuumaal ko dara ndax ku tey la ku dal la toll ci fanweeri at ak juróom 35 ans defeere nañ ko nag ci àjjuma ci lañ koy toppee mooy pédophilie viol corruption de mineur lii mbokk internet yi moom lañ koy toppee ñu xaarandi nag. fan la yoon di mujj ak yi gëtam ca la nga xam ni moo di procès ba ndem am na mbokk yi mu toywaar lool nekk fee bu yéemee ubbi internat ñu jox la ay gune nga war leen a sax ci seen diine orienté leen di yegg ci seen kaw ba dem ba amu fit di leen defloo planning familial ngir ñu bañ ëmb ka nga ngëbal 3000 francs ya ñu fexe ba piéger ko ba woo police police teg ko loxo keneen ñëwaat moom itam ñu piéger ko enquête bay law ba juróom-ñeent ci ñoom yegg nañ ci seen kaw ba ñu infecté yii doy na waar mbokk yi fee bu yéemee ngi nii fee boo xam ni képp kooko nit li bu tegee bara def fele saa di attaaye boo saaganu dina tig ba këpp attaaye ci kawam ak xal du ko tey bii fee képp kooko nit li mu yàq boolib ceebu jën bu tàng jër ñi war cee siyaamu boo saaganu dina ko jël ci suuf si xañ ko nit ñi te dara xewul ndax du ko tey lii mbokk yi koo ko nitali mu yorub jakarta di daw ci tali bi boo sàgganu dina mbëkk oto wala mu saaraan def musibata du ko tey ndax feebu dis tëri yéeme ne doy na waar dangay seet lii ak doom ni mu foore nga am confiance ñëw jébbal ko nit mu dajale leen ci ak kër ndekete yoo bu guddee li ëpp ci jigéen ñi day yegg ci seen kaw ba lii xew lii koo ko nitali di ko gëm koo ko nit li day sakk ay noppam ndax doy na waar fee bu yéeme la jàngatu tey bi yéeme na mbokk internet yi niy topp ci suñuy plateforme doyeeti na waar romb na ab tool soo tët tët tët ni ñuy def rek mooy ah ñu déglu yoon rek ndax comme gune yi am nañu ay wéyjur yoon itam nekk na fi te ñépp la fi nekk la justice est impartiale elle est pour tout le monde nañ ko déglu xam fan la wan leen di mujj ak ay gëtam organisation yi défendre jigéen ñi aussi nañ leen déglu xam lan mooy ci seen wareef ndax nag toujours ñuy wax di dénoncer ay violence ay ay ay ay mineur détournement de mineur nangam nangam waaye nag jot na tey jii ñu appliquer loi bi nga xam ni voté woon nañ ko fi ci atum 2020 la loi criminalisant le viol et la pédophilie jot na ndax nag moom rek lañ war a mën a taaj bu ko defee yu mel ni ñu éviter ko ci suñu société ndax dëppoowut ak suñu diine dëppowut ak suñuy valeur dëppowut ak ni ni mooñe Sénégal ndax lii nag nekkul loo xam ni wax dëgg lu neex la te lu mën a xol dégg la wala lu ay gët àttan déedéet beneen bi ci des comme dossier bi mu ngi ci loxoy yoon duñ ci sori fii la ñuy yem mbokk yi ah di leen wax ni leen yokk leen seen i abonné ci suñuy plateforme saa suñu ñëwee li xew ñu leen koy man di baaxee di leen ko faram-fàcceel ngeen koy mën a jot foo leen mën a ne ci duniyaa ñi ngi leen di jaajëfal sàkk ko ci yéen di leen ñaanal weekendu jàmb di ko ñaanal bépp doomu aadama jërë ngeen jëf